di sant tamit di ñaanal ñaanali sëñ Cheikh salou sunu wasila yalla yagal ko ci lool mom te wer wax ji nak du gudd ndax li yëngal ñep rek moma ma en tant que taalibe Serigne Touba muy mbirum Aïda Diallo ndax man mbirum Aïda Diallo pare won na ci kérok ba seigne Muntaxa ne nañ ko sànni ci seun ba kérok la pare won ci ay waxam waye comme yalla dafa dogal na né ci yoon bi amna ñu wax juree je señ Muntaxa wax ci ayda jallu ne nañ ko sanni ci señ ba su ndon ndaxal sharia dañ ko wara ray man loola la jàppoon ba tek ko do côté ndekete amna ci bir la Cheikh Ibra waxoon njiiruur tol bi ci bir ci bir tol bi lay jógee ñak nañ ko de way li koy ruur ci bir tol bi lay jóge loolu mo ñew tay ni ah ñu yenu ko guddii yobbu dindi la sëñ Muntaxa waxoon lépp teg ko fee ndax lan poñetu àddina ndax xaalis en tant que xalif général des mourides nga xam ne ñun dara gënu koo kawe ci ñun ci àddina bi Aïda jàll mi nga xam ne sëñ Muntaxa jataay naa ak moom ñeenti yoon xawma ban murit ci Sénégal gii la seen sëñ Muntaxa di woo benn yoon tere la te lam la tere doo ko bàyyi su fekkee ne nee nga murit la waaye man gëw ma ne murit la dama gëm ne Aïda yëfi boppam rek la nekk loolu nag moo waral suñu wax ji tey ndax ayda Diallo de citoyenne la sénégalaise la bu ko neexee woote lu ko neex na woote ak yonent suñu yoon nekku ci na woote lu ko neex waaye ñun daal fi ne li ñu bëggatul a dégg mooy ayda di def li ko neex wooteeg sabar teg greffage woo xale yi ci fo ak caaxaan rek di tuddoo sëñ Touba sëñ Touba nag moom murit yépp a ko bokk murit yépp a ko bokk taalibe yépp a ko bokk te firnde ji mooy keroog ba ñu waxee léegi fu taalibe nekk wane nga sa xol bu tàng fu taalibe nekk wane nga sa xol bu jeex ndax lii dafa liggéeyu mag ñoo xamante ne benn ku jigéen du góor du dara ku jigéen koo xam ne kenn xamul fu mu toppee ñëw nit ñi boobu ba léegi nag daanaka muy bëgg a mat lu bari nag mu di ñu gololoo rek sëñ taxa waxee mu génn def leneen te saa yu ko defee nag yàlla weer ko ndax xam naa ne ñu ko yóbbu ca sëñ Muntaxa ba mu demee la mu leen wax mooy tuub naa la ma woon ya bàyyi naa ko la tax ñu nangu ko faa recevoir waaye yàlla weeraat ko mu génn di def Saint-Valentin jël parole di fa wax di nettali ay gént yoo xam ne maam Cheikh Ibra Fall li maam Cheikh Ibra buy feeñu dina feeñu keneen ku dut yow xam naa dangaa xamul maam Cheikh Ibra ak lim fi bàyyi ca mag ña ah, ma di la xamal ne nag yoonu Serigne Touba yi ku ma jox kaamil ma dóor ci sama loxo kitaab bu ci ne mënoo koo yàq nit a ci yàq waaye kenn mënu ko yàq ndax yoon bi borom da cee sonn torop sonn ci lislaam ji def juróom-ñetti at yoo xam ne gisul njaboot gisul doom gisul kenn di liggéeyal yàlla boroomam ngir ñun ñu añee ko tey jii añ bi nag ñëw na de mu yaa ngi koy añee bu baax a baax climatiseur yi sedd na ginaar yi doore na waaye nañu leen delloo sëñ bi njukkal nag ci arrêté ndaw si nag te xamne nak li muy bëgg yaq fofu rame. la ibrahim ramé Cheikh Anta borom gawan, ramé fa Cheikh isa jenn borom jennek la gan ramé fa Mam Cheikh Ibrahima fa ramé fa seigne dam Abdourahman Lo Cheikh samba seigne daru Assane nyu nyup, ñu baax A, ñëpp et cetera et cetera ah man nak ma yaakar ne nak ay Diallo jall nak fimne nak da nga bëgg nak egg nga nak fa nga doon dem yëf yi murit yi nañu jóg te xam ne nag jóg jot na luy jot jot na ginnaaw de ndax yoonu murit nag kenn mësu koo yab yoonu murit kenn mësu koo yab kenn mësu koo ñeme waaye ayda daal mi ngi ñuy bëgg a yab Aïda mi ngi ñuy bëgg a ñeme te nag xaw ma lu tax ñun bu fekkee ne xaalis la baax na su fekkee ne alal la baax na lu mu ci mënti doon ayda doy na sëkk ñun bàyyee ñu sunu yoon bi rek te nga ber sa yëfi bopp di woote sa yoonu bopp Sëñ Tuubaa fowul folowul kë ca gën a ndaw ca taalibe bu gëm dëgg sëñ tubaa lii nga ñeme ñemewu ko amul benn mbàkke mbàkke li ko dale ci doomu sëriñ tubaa yu tedd yu sell yu jigéen yooyu nga xamante ne lu leen neexoon mënoon nañ koo def lii nga ñeme mosuñoo ñemee woote seen yoonu bopp kon nag yow yaa ngi ñuy bëgg a yeb te yëf yi nag dafa war a yem dafa war a yem de maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag gis naa réaction yi murid yi seen xol yi tàng na waaye nañu bàyyee lépp ak sëñ bi nag ak jog fajal ko suñu bopp nag lii moom il faut que ça cesse doy na sëkk